kilifa yi fi teew yépp jël nuyoo bi teg ko ci loxo sëriñ Ahmad Badawi mu jottali ñu nuyoo boobu suñu sëriñ yi fi teew tey ci amphi de bi ñu bég ci trop parce que ñoom bu ñu fi teewee am na lu muy tekki maanaam seen bët seen loxo mi ngi ci université bi waaye it kii du ñu jiite di jiite université bi ça veut dire que aussi fépp fuñ ñu war a taxaw dinañ fa taxaw ak moom loolu dal na suñu xel bu baax a baax mais aussi dinaa ci ñëwaat ñoom ñi fi teew yëpp nekk ay kilifa diine ay modèle lañ dinaa ci ñëwaat université étudiant yi fay dund dañoo soxla ay modèle di nuyu ñeneen ñi fi teew ñëpp invité yi mais aussi personnel d'enseignement et de recherche ak personnel administratif fu université bi di leen nuyu di leen di leen gërëm ci liggéey bi ñuy def liggéey bi ñu sëriñ Muntaxa dénk nga xam ne lim ñu ci waxoon la ñuy gis parce que programme yi ñu leen wax léegi ñu tënk ko joxoon ko ko balaa ñuy tàmbali bañ ko koy jébbal ànd ak sëñ Ahmad Badawi dane projet bi fu mu yem yéen a ko fa yemale xam nga loolu loolu lu rëy la te gis nañ ne nag heureusement projet bi moom amul yemukaay day continuer rek ma ñëw pour waxtaan ak yéen ci thème bi démb bi may jokkoo coordonnateur bi professeur Mor Faye nii la ko tënke woon sax ma ne ko noonu laa koy indee pour étudiants yi mën a comprendre Pape Makhtar yi mi def présentation bi léegi ñëwaat na ci ma koy nuyu di ko ziar moom yàlla moo ñu boole parce que wax na ko bi ma demee université Saint-Louis 2010 comme directeur d'UFR booba la dugg moom itam ci enseignement supérieur nekkoon administrateur civil que chef de service administratif Ben UFR foofu yalla dogal biñuy ñuy nommé secrétaire généraux université yi ñu nommé ko université Alioune Diop man tamit ñu nommé ma fa recteur ce qui fait que li ñu wax bras droit mom la won pour man bu ma ko toujours ku nek day muñ parce que dañ doon liggéey no xamné amul ben bis 9 h te Pam Makhtar Ndiaye du ñew suma bureau ñu taxawal liggéey bi université kon moom itam xam université tous les jours 9h bu yalla défé ma nek ci réew mi bu ñu waxé ba paré mu teunk ko mu dem doxal té gis ngeen université Alioune Diop djégo yi nga xamné def nako li ñu yalla jappalé ñu am ko fa comme résultat ñuy ñew wax ak yéen nag ci lo xamné amna solo moy université étudiant bi fa nek lu ñuy xaar ci moom ci dund ñi ma ñi ma jiitu ci kii bi sax am na yuñ ci tënk Mor Mor fay les directeurs directrices du fr sëñ Sam ñëw na ci léegi mais foog naa bu ma leen defalee synthèse bi ba pare document bi ñu bàyyi ko fi parce que thème bii bi ma koy débat ci université yi yàgg na booba demaguna sax université Ndar université eh, Dakar laa koy doon njëkk a présenté te gis naa ne amaloon nañ njariñ étudiants yi li ma jaaxaloon sax man jóge naa foofu bu yàgg parce que 2010 laa fa jóge mais étudiants yi ba tey dañ koo enregistré téye te période boobu enregistrement yi yombewul nii mu yombe yéen ci yéen mais man gis naa ne ñoom dañ ko enregistré en file bu ñu am day ñëw teg yaakaar naa donc ñu tënk ko am na ci am na ci solo li ñuy xaar ci yéen ci comportement mooy li sëñ Ahmad di xaar ci yéen moy li jangale kat di xaar ci yeen mais lool la seeni wajur aussi di xaar ci yeen plan bi la koy defé damay ñëk introduire wax leen euh, ben organe bo xam yalla mo ñuko baxé ñukoy wax cerveau jàng ngeen ko lycée léeg-léeg profilé le won encéphale nu muy bu ngeen xamé ni muy doxé gis ngeen ne bu ci yàlla àndee day bu ngeen duggee université bii man ngeen ci génn ak seen sa te du am yenn jafe-jafe loolu nag li muy indi da leen di jox confiance parce que loolu amuñoon jot ci dugg ci étudiants yi ñenn ñi bu ñu duggee université du ñu réussir parce que seen confiance moo des mais bu ngeen gisee seen cerveau bii yàlla baaxe ñu ni mu tëddee di ngeen gis ne seen njort war na rafet donc dinaa leen waxal largement ngeen xam cerveau nu muy fonctionner ngeen gis ne machine boobu ngeen am bu ci yàlla àndee bu ci yàlla jàppee mën naa tax ngeen réussir licence masteur doctorat ba weesu ko parce que machine bu doywaar waar la bu yàlla sàkk def ko ci nit bu doy machine bu doy waar li nit di bëri pexe yépp defagul machine bu mel nii après ma ñëw ak yeen ci yeneen yi ci biir cerveau bi laal leen di naka ngeen a classe bu ngeen génnee classe bu ngeen demee vacances kër ga loolu dinañ ko dugal foofu mais nag jàng dafa ànd ak yeneen di xalaat xalaat bu positif li ñuy wax méditation méditation boo xam ne matière ba ngay jàng ci nga ngay méditer loolu dinañ ci ñëwaat lu am solo la après am culture générale mënoo am licence master ba pare amoo culture générale da nga war a am culture générale sa discipline mais aussi fépp fu ñu la teg da nga war a mën a wax ak nit ñi tolloog ñoom ba ñu comprendre da nga amal leen njariñ amal njariñ sa bopp mais un cadre comme souvent bu ñu amee licence master da ngeen naan ay cadre lañu ay intellectuel lañu dafa am aussi nu muy doxe mënoo ni am naa licence rek cadre la te na ngay doxee bokkut ak doxinu cadre donc loolu dinañ ci ñëwaat muy culture bi ak yeneen yi nga xam ne ñooy noppal yuur parce que yuur machine bu doy waar la mais dafa soxla noppalu amul machine bu dul noppalu loolu aussi dinañ ci wax ba loolu weesoo ñu wax yëfu nelaw yi di gis ngeen ne dama ko ber parce que loolu debale ci étudiants yi nelaw da leen di def véritable problème ñenn ñi foog nañ ne bu ñu nelawul lu doy duñu mën a jàng ñeneen ñi yàlla leen bind loo xam ne yi aussi seen i nelaw dafa gàtt wala seeni nelaw dafa bari nu ngeen koy gérer loolu bind la lu ngeen di lekk ak garab yi sax dinañ ci wax lan ngeen war a taamu ci lekk ak garab parce que ndaw ngeen mais da ngeen war a moytu yenn yi avant may conclure léegi li jara xam mooy ñu tënk ko fii développer un esprit saint dans un corps saint. Manam, fexe leen ba sen yaram wi xalaat ya fa nek na ngeen fay jëfe doon lu sel na yaram wi sel xalaat yi sel xam nga loolu bu amé rek waxuma laa yéen sax mais da fay da fay gëna simple développer un esprit saint dans un corps saint. ngeen xamné études universitaires yii ngeen di tambali yalla def ñu koy ubbi tey jii njàngam métier ci ngeen dugg léegi loolu mooy différence am ak bi ngeen nekkee lycée lycée dañ leen doon joxi base rek mais léegi nag fii comme teg ngeen fi tànk commencé ngeen jàng métier waaye yit commencé ngeen jàng dund gii des ngeen war ko dund nu ngeen war a mel dund googu mënta bokk ak seen dund en tant que élève parce que léegi ay étudiant ngeen après da ngeen di liggéey di fayee wala ñu leen di fay mais da ngeen di am responsabilité ci société bi dund googu nag lool ngeen wara def seen bop aujourd'hui tay ji que léegi kat da ngeen am ben mission bu maga maga mag moy jangu métier ak nu ñuy dunde ci biir askan wi ba am njariñ lool nak fenn lay jaar ñukoy teunk tënk jàngeen ko terminal ñu ci bari philosophie profi yi dañ ciy insister y a trois types de savoir le savoir xam-xam bi le savoir faire xam noy defé le savoir être noy deke ñeneen ñi ñetti xam-xam yoy lañuy xaar ci yeen ci université bi lool la leen dirigeants yi di jàngal lool la leen prof yi di jàngal ngeen xamné ne jàng mi bu leen koy def aussi da ngeen koy defal seen bop mais réew mi ngeen koy defal lool aussi lu am solo la étudiant médecine si bu de rentrée 350 Dakar dama leen di wax bu conférence bi kep ne wax pour def en tant que médecin ne médecine bi parce que médecine du discipline bo xamné dang fay ñew ba pare yenn yi do ko nangul wi te am ci déglu une semaine après wax ak professeur man fimné man numay def mané ko dina la accompagner ñu xol un mois bo ci génné continuer bo ci génnul boy bo nga baye médecine parce que médecine dafa dafa war am noy mel bala ngay nek ci médecine donc jàng pour yeen jàng pour askan wi lu am solo ta te ji ngeen gis ne bo jangé pour askan wi jang nga pour yow lool sax la leen di wax ngeen inverser ko bu leen jital salaire fimné bu leen jital ay auto bu leen jital lenen jital leen xam-xam bu amal njariñ askan wi loolu nak day soxla sérieux ci étude ci étude sérieux ci ñëwaat am mental bu dëgër a dëgër maanaam du ngeen teel a découragé du ngeen teel bayéku wala leneen di leen fab bi am solo la ngeen organiser seen liggéey parce que liggéey bi dañ koy organiser légui nak am ngeen étudiant c'est en train d'étudier loolu aussi day réfléchir ci terme bi madame euh, ku góor ki monsieur lan nga étudiant la société bi nee na ay étudiant ngeen étudiant c'est en train d'étudier lor rek la len askan wi denk donc étudier leen jaamu yàlla mais dafa soxla engagement aussi engagement alors ñu ñew ci organe bi bu ma len ko posé won question yéen ñeppay trouver organe bi tax euh, mën a étudier mom, bi gérer études mom your la muy machine bu doy waar bii nga xam yalla yàlla da koo defaree noo xam puissance bi dafa reuy mais noonu la nango top nit ci limu bëgg def it dafa am katan mais li nga bëgg boo ci pousser it foofa la lay yob mom moy gérer étude mu yor un potentiel intellectuel énorme li ngeen wara def nak moy seen temps bi ngeen am nga xam ci science yi science yi nak mom dañuy teunk rek ci science, yi ben bis 24 heures la li ma len di wax nak yenn yi ci suma science la moy neurophysio bi Pape Makhtar ndjay wax léegi parce que man ci lolu la yalla def ma jang ko di ko liggéey mooy yuur siddit nu muy lay jangalé loolu lay faj donc lenn li fofu la ko jële Yalla xamné né ne bi koy pratiquer ak léegi 1987 la commencé pratiquer neurologie donc xam ngeen ni amna ci ben expérience yoy lay indi manam do dem ubbi livre gis ko fa man li ma dund laa leen di wax fi lenen li jàngale bi la ko jëlee loolu it yàlla def ne man 1984 la yalla def mo commencé jàngale bobu m'a ngi quatrième année de médecine mais faculté bi soxla woon li ñi wax moniteur <laughs> xamna peut-être amna fi ma déposé ni dossier ndax deuguer fii rek ñu woma ne ma retenir nañ sa dossier na nga ñëw suba ñu former la nga commencé jàngale boobu amaguma diplôme donc loolu aussi quarante ans de pratique moom laa leen di tënkal ci ay ay simili ñu ne danga koy xaajale liggéey bi ci njàng mi mooy le travail ci nooy noppale yóor gi ci nelaw yi ak activité sociale yi sociale bi ci la seeti ñi ngeen war a seeti wax ak ñi ngeen war a wax seeti waajur yi ci la war a jàpp ci liggéey yi nekk ci quartier yi fii ci la ñuy seet seetal nga génn université dem bokk ci la màggal am nga futteeku ne man infirmière laa soxluma ci dërëm mais damay dem taxaw malade yi ci social bi la bokk léegi lan mooy condition bi pour réussir wax nañ ko fi léegi mooy seen engagement kenn mënul réussir université boo engagé wul ne mankat diplôme bi ma deugmal bu DUT fi ak deux ans dina ko am bu dee licence dina ko am léeg-léeg sax nga man kat deugmal na doctorat dina doon docteur pourquoi pas man ngeen ko def avoir la volonté de bien réussir man foog système sénégalais bi ni mu sélectifé suñu étudiants yi waruñu xalat réussir kese parce que dafa sélectif un taux de réussite au bac de 50%, ça veut dire moitié bi éliminer lañ donc vous avez été sélectionné donc réussir warul c'est une question bien réussir c'est war a prendre la décision d'être parmi les meilleurs léegi nag université bi ak symbole bi mu D'autres qui dootuma ci ñëwaat ku ci dugg une étudiant au Sénégal ma ña un gën lay bokk ci fànn un nag loolu yëpp bu leen ko defee dina am parce que ñun loolu lañ décidé woon fu ñu dem rek ni ña fa gën la ñuy bokk booba it dañoo gëmoon sëñ bi jóge ca euh, dëkkam yu sell yee muy kër gu mag Jurbel ma ne fii lañ jóge waaye fu ñu dem nañu doon ca ña fa gën ca ñay jàng yéen tamit décidé leen loolu fii c'est-à-dire nouveau type d'étudiant du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ils font partie des meilleurs étudiants du Sénégal loolu la ñu bëgg fii ak ay at nit ñi waxal ko seen bopp ñun ñu bañ ko wax avoir l'ambition de devenir autonome étude nag li ci intéressant moom moo lay moom moo lay daggal ay jéng yu mën a nekk ci àdduna mais nga jàng yàlla jàppale la jéng yooyu du la jege ça rend autonome autonomie nag am na solo ci àdduna maanaam nga mën a décider ne lii laay def yalla jàppale nga def ko mais khalaato lenen lu fay mën a wala nga dépendre ci kenen ba doko ko def loolu loolu gënut étudier aussi acte citoyen la toujours ñing leen di wax citoyenneté étudier acte citoyen la société bi mo leen denk étude mais xam leen ni étude yi dara gratuit wu ci li leen di jangal fi matériel biñ def ci université bi li fay ñi leen di jangal ñii di leen encadrer lañ leen di fay suñu ko jëloon mais kenn ci yéen du ko mën a fay ça veut société bi moo leen fay ça veut yoon wi moo leen fay ça veut dire sëriñ bi moo ci jàpp léegi nag yéen li ngeen mën a delloo njukkal mooy ngeen ngeen jàng moo tax c'est nag acte citoyen rendre la monnaie à son à ses parents et à son servir les autres pour se servir ce que nous di digal avoir des modèles ni avons am ay modèles dinaa ci modèles, mais ce modèle bi moom wari ko du sori université Cheikh Amadou Khadim modèle am yomb na yomb na trouver s'ancrer dans votre culture Nous ñu aussi dañuy dugg enseignement supérieur jël trajectoire yu trajectoire yu parce que comment nañoo xam tuuti tout nekk ci non non non il faut rester ancré dans votre culture dans la culture musulmane comment optimiser le fonctionnement du cerveau alors machine il faut doy waar xam nga 100 milliards de neurones maanaam 100 milliards de peps. moom la yàlla def ci suñu nous gi kenn ku ci qui ci 100 milliards pour étudiants yi ce lan parce que les gens qui 100 milliards, 200 milliards, je vais poser la question la population mondiale. Quelle est la population du monde Les étudiants Combien Voilà, 8 milliards récemment. Récemment, ils ont gagné 8 milliards. Mais si nous avons 100 milliards, te fi mu ne benn doomu aadama boo natt mi ngi ci huit milliards yooyu mais ñun cent milliards la ñu yàlla jox xam nga kooku am na lu muy préparé bu ñu joxee cent milliards dina ci ñëwaat léegi jàng nag lan la solliciter cent milliards yi kon de mel na ne jàng sant nañu ko moom cent milliards yi ñooy tax ñu jàng dinaa ci ñëwaat léegi nu ngi nu ñuy taxee ngeen jàng ñooy tax ñu dund ñooy tax ñu wax ñooy tax ñu màgg ñooy tax ñu ami bëñ ñooy tax ñuy dégg 100 milliards mais nous sommes particulièrement ñu pouvoir se concentrer sur l'essentiel mais l'essentiel pour y aller étude. mais xam leen ne booy concentré wu intelligence parce que la question si vous avez di ngeen ci ñëw da mais évidemment intelligence est ngi ci mais le ni de nit lépp intelligent même DER dafa intelligent bu bu yalla defee ngeen avancer touti man na len defal conférence ci intelligence DER sax dafa muus mais nak yuur moo yor intelligence bu mag bi mais concentré wu ci sa njàng moy tax intelligence bi ngeen jógee lycée yok yok trop ba ngeen bam jox len intelligence étudiant neuron bi jang ngeen ko mi ngi nii pepp ma wax légui doom boobu yàlla defar dugal ko ci suñu bopp bi mu yor mbiram jàng mooy neurones bii ngeen di gis gis nga neurones yi bu ñu leen taqalee lu doy waar cent soixante mille kilomètres la muy quatre fois le tour de la terre bu ñu leen taqalee quatre fois le tour de la ter mais lii xam nga kii kiimaan la te ñoom liñ leen sant mooy su ngeen bëggee jàng ñu jàppale leen ba ngeen jàng

que cinq phases moo am na ngeen xool phase yooyu nag lu am solo la comme euh, kii bi dam dañ ko fi bàyyi présentation bi na ngeen ci réfléchir xam nga lu njëkk mooy concentré wu bu jàng jotee boo ubbee téere bi walla professeur bi taxaw na nga concentré wu ci téere bi walla professeur bi loolu moo njëkk loolu nag jafe-jafe la ci étudiants yi da ngay nekk ci salle bi mais xaajoo nekk ci salle bi jëmm jee fi nekk yaa nga fële seen kër yaa nga ca salle ba yaa ngi ca benn xarit bu dem France Canada yéen a ngi ci téléphone yi alors que booba da ngay teg yépp concentré wu ci livre bi ak ci professeur bi nga jàkkaar lool li ci topp mooy boo ci concentré woo li ci nekk ngay gis la prof ba di wax ngay dégg loolu mooy indi analyse li ngay gis ci livre bi ak li prof bi di dégg mooy deuxième phase analyse donc mënoo analyser comprendre te concentrer woo ñii ngeen fi gis ñëpp ñu intelligent bu ñibé ñibbee ubbi ubbiwaat carnet li lañuy réussir dañuy concentré wu ba paré mëna analyser li prof bi di wax bokay def di comprendre li prof bi di wax troisième phase bo analyser comprendre da ngay retenir li ci livre bi wala li prof bi di wax muy mémorisation wala bok bu matière buñ dul mémoriser la comme les disciplines d'ingénieur technique da ngay découvrir logique bi nek ci biir mais loolu moom même ci yeneen science yi logique bi ngeen di découvrir wóor na ma ñu def fii première année daaw science islamique découvrir nañ benn logique boo di mémoriser wala nga découvrir logique matière bi commencé nga koo xam muy troisième phase quatrième phase xam nag boo ko defee ay fani fan ay aji ay ay ati at nga xam na contenu wu matière boobu contenu wu cours yi mais kooku buñ la ci laajee cinquième phase nga mën répondre gis nga phase dafa yépp concentration analyse compréhension mémorisation découverte d'une logique connaître le contenu buñ la laajee wala ñu ne la jëfal nga a jëf buñ la répondre di am 16 buñ ne machine bi nga taal buñ ne répondre

motax yalla répartir répartir millions yi 1 sentir 1 milliard b del, 1 milliard bi del xol un milliard bi del analyser rek lu xew nga analyser wax lan ci mémoriser b mu ne ko zone zone de la vision et de l'audition zone du toucher et des articulations yo yeb sentir zone yi analyser yu analyse intégration zone bii mémoire zone bi bëgg bañ BUG bëgg bëgg bañ bëgg te loolu jàng ànd jàng da ngay bëgg li ngay jàng da ngay bëgg professeur yi da ngay bëgg université bi lii tiitloo tit aussi dafa am solo tit bu ëpp baaxul mais tiit touti baax mais tok rek deugër né do tiit ci dara wóorut ak zone des émotions Manam su baaxee nga contane su baaxul nga mer wala sax nga jooy bu dee bu dee soxna yi loolu yépp yàlla da koo jël dëxëñ ko ci cent milliards yi léegi nag mu mujje zone yi nga xam ne bu boo yëgee réfléchir ni lii la war a doon léegi nag nga war a yëngal cër yi pour jëf mu defar ay zone nag pour jëf ñu koy wax les zones motrices nga xam ne mooy bind nga xam ne mooy dox mooy wax ndax wax c'est de la motricité mooy xapp-xappal bët mooy solo mooy faxasu mooy sangu loolu mooy les zones motrices kenn ci yéen du ne ma lii yëpp du xëy di ko def mais ay ay ay neurones ñooy gérer loolu yëpp te yàlla daf ñu cee jox ba ñu ba mu doy sëkk sëkk sëkk alors zone yaa ni, nii lii dina leen fàtte seen cours SVT le cerveau avec ses cinq lobes le lobe frontal mooy bii ci kanam le lobe pariétal mooy bi ci diggante bi le lobe occipital mooy bi ci ginnaaw le lobe temporal mooy bi nekk fii ci tàmp yi yéen ñëpp am ngeen lobe yi bu ñu ubbee yóor gi nag ci lii la ñuy tombeel bi ci suuf dinaa ci ñëwaat lii la ñuy tombeel loolu yàlla daf koo nëbb parce que dañuy yor ay ay fonction yoo xam ne dafa am solo nga xam ne boo doon gaañu it yooyu du fa egg dafa am solo ay affaire u xam-xam ak ay affaire u bëgg ak bañ a bëgg ak ay xam lu baax yooyu yëpp da koo denc foofu mais boo ubbee loolu ngay taseel léegi yóor gi gis nga neurones yi ma wax léegi ni ko yàlla tase yàlla suñu borom ni mu ko tase ci yóor gi nii la def ngeen xool ko di ngeen gis ne li ñu doon wax léegi sëñ Sam ñëw ci mais bu leen defee benn effort bu ndaw rek di ngeen ci génn xam nga nu mu bindoo li ci kanam a kanam mooy nekk fii ci jë bi li fa yàlla dugal mooy li ñuy wax les conduites sociale ak élaboration de stratégie maanaam li ñuy tere ci société ak no yeen stratégie ngay teural ba génn ci situation yi ngay jànkonteel boo yeewoo ba ba ngay tëdd foofu zone loolu yàlla ci kanam la ko def conduite sociale xam nga conduite sociale am na solo lim doon wax léegi ne boo egsee Touba rek war nga ne xam ne Touba nga egsee am na lu fi tere am lañ lu ñu fi lu ñu fi permettre loo mën a def mais loolu zone bi moo koy jàng te ba mu koy jàng xale nga moom xale lay jàll jàng daal di gis ne jullikaay boo fay dugg nii nga war a mel bu sa waajur waxee nii nga ko war a respecté bu sa maître waxee nii nga ko war a respecté waaye nag bu euh, def lu lu la neex jotee yaa ngi sa néeg bu la neexee def ko zone bii moo koy jàng lool maanaam li la école arab bi doon jàngal li la professeur ba jàngal zone bi moom retenir na ko nee na kat ku nekk sénégalais nekku jullit nekk murit lii ak lii nga war a doxe kii retenir na ko te moom boo yeewu mu la koy fàttali kon nag bu ngeen bëggee baax di ngeen baax loolu rek laa koy résumé nit bu bëggee baax yàlla jox na ko structure ay neurones yi tax mu mën a baax ñi ngi fii xam nga ñoom lu ñu koy étudier ñun boo accident nga nga dóor fii zone bi yàqu nit ko bu yeewoo réanimation hôpital lu ko neex lay def parce que zone bi ko doon wax bul def lii dafa yàqu dina ko def ay fan tant que day def lu ko neex ki daaw bu daawul bu daawul ree fii ma nga fa toog di ree foo xam ne daaw foo taxaw naan gaan waaye da koy ñeme loolu mais loolu zone bii ñu am moo tax du am donc fii bu ngeen fi duggee li ngeen war a def zone bii moo koy retenir di leen ko def loo beneen bi ci topp mooy lépp luy yëngutu moom lay def les mouvements complexes mouvement yi yëngutu rek lépp lu yëngutu les mouvements volontaire aussi maanaam li nga réfléchir bëgg koo defal sa bopp mouvement yi zone bii ci topp moo koy def beneen bi nag moom yëg lay dunde maanaam lépp loo war a yëg yow xam ne sol nga yére dangaa yëg yére bi laal lii xam ne pointeur la wala ma laal lii xam micro la zone yi loolu mooy seen seen seenu seenu dundukaay loolu la leen yàlla dénk maanaam lu nit ki war a yëg yëgal ko ko mooy la sensibilité jàngoon ngeen ko zone ba ca ginnaaw nag moom mooy gis dinaay fi ñëwaat parce que nopp day capter mais nopp du gis yuur mooy gis zone visuelle ba tey scientifique yi dañuy discuter ndax xamuñu li tax yàlla bere ko nii <laughs> mais am na yoo xam ne dañuy réfléchir ba sonn duñ fu fuñ tasee ñu ngi discuter lii ak lii tax peut-être duñ ko xam mais en tout cas daf koo beral ma nga ne zone de la vision bii boo ko détruire nit ki ay ay bëtam dara sikku ci dootul gis mooy wane ne mooy gis or tant que ma nga fa bu. bët envoyé mu ne ko lii nga gis te lii lii lay tekki ëpp na gis moom da day wax ne lii la diw la lii la lii lay tekki mooy zone de la vision bi ci toppaat fii ci suuf mooy zone bi waxloo maa ngi nii di wax ak yéen mi dafa am benn zone ci suma cerveau boo xam ne moom wax rek la ko yàlla bindee ak ak bind ñoom ñaar leen taqale wax ak bind boo ko détruire nit ki du wax day dal ay nit dangay ngay doo wax zone bi mo febar mom mo am AVC man nga yeewu do mën a wax mais lepp ngay gis lepp ngay xam mais mënoo wax zone ba mo febar buñ ko fajee rek nga daldi wax ñom ñaar la taxalee nak langage parce que dafa am langage écrit langage oral zone yi la xam nga ki am solo ci étudiant zone bi bind ak zone langage parce que ñu ci bari prof dañ leen di interroger ngeen réagir par écrit ou par parler benen bi nak moom itam li wax les fonctions supérieures manam mémoire téye téye li nga jàng téye ba nga nekkee xale ba léegi lan nga dund mais mooy fàttaliku ak fàtte ñaar yi ànd bu ma amee temps dina ci ñëwaat fàttaliku ak fàtte heureusement bu nit ko dul fàtte yi mënul dund lu yàgg da ngay il faut nga fàtte mais li am solo doo ko fàtte kooku yàlla def ci def benn zone spéciale muy zone de la mémoire taqale kook zone bii dégg parce que dégg aussi lolu la comme bët la pas day capter mais du dégg yor moy dégg fa la zone yu bëgg bañ a bëgg nekk bëgg zone ne fofu la nek ak zone bi wax zone des émotions légui boo gisee bët yi rapidement ma jox leen exemple gis nga bi ni ci ndaw bi day mais am bleu lu fay schéma bi ci kaw fil ñoom ñooy yóbbu li nga xam ne bët bi capté na ko ba ca yóor ga yóor ne la gis nga lii lii la donc fiil yii ñoo koy yóbbu léegi mën nañ ko topp sax mooy schéma bi ci suuf mais comme ay science la yu xaw a dëgër dama koy dama leen ko wan nii rek yàlla sax def na ne benn bët bu nekk li muy capté ñaari yóor yëpp la koy envoyé parce que ñaari yóor la ñu am yóoru droit ak yóoru gauche moo tax ñenn ci yéen nekk ay gaucher ñeneen ñi nekk ay droitier donc gis nga système bu performant bi yalla defar nga xamné caméra bi mooy beut dañ ko relier ak ay fil jox ko nak ka nga xamné mo am intelligence parce que beut mënut am intelligence muy yor yor mo am intelligence lol motax tax ñenn ci yeen ay stratégie la mais luñu gis sal japp ko kooku ay différence la ci ñun ñëpp te ñëpp ko dund muy ku jang alcorane ku jàng euh, agronomie ak leen am naño xamé xam ne bu ñu gisee rek jeexna na fixé nañ ko

bo jëlee dégg moom itam même importance la am parce que mënoo jang yi te dégg bi demeewul noonu ñi dul dégg nak am nañ ay méthode jang loolu benen sujet la mais yeen ñi dégg gis nga aussi lu yalla def nopp baangi ni ci suuf li di nuroog euh, di nuroog ab escargot nopp ci biir non la mel gis nga ay fil la yalla defal aussi yobbu yobbu dégg bi ca yóor ga donc yóor moy dégg aussi donc dégg amna solo loolu moy importance li ñi wax assiduité d'un étudiant dem cours dégg gis prof bi bokkut ak bañ a dem cours dee leen dem cours ku leen bëgg a wax loolu bu leen ko déglu bu dee enseignement distance ok mais fii bu ngeen fi nekkee dem leen cours léegi yàlla def boo décidé nag yëngutu mu defar aussi fiil yoo xam ne mooy jëlee euh, mooy jëlee xalaatu yëngutu bi ca kaw a kaw wàcce ko ci muscle yi gis nga fii aussi ay fil la ay millions yu fiil mooy tax nga mën a yëngutu mooy tax nga mën a dox moo tax nga mën a wax boo ko gisee fil yooyu ñooy wàccee influx bi fii ci suñu muscle yi boo bëggee lem tànk lem tànk boo bëggee bank loxo bank ko loolu dinaa ci ñëwaat parce que jàng la sport la mais aussi seeti nit foofu lay jaar lióor gi yàlla defaraat ci suuf yeneen zone yoo xam ne boo jàngee dara mu bees da koy dañ koy yàlla day def day wàcc foofu mel ne benn genre magasin boo xam ne fa ngay stocké li nga jàng ci bis bi loolu nag am na solo parce que comme li ñuy jàng dafa bëri yàlla moo defar ci suuf laa zone bii foo xam ne danga ko fay wàcce mu stocké ko nag soo ko soxlaa taxaw woo ko xam-xam boobu ñëw bu foofu feebaree xam-xam bi du ñëw léegi boo xoolee ba tey toujours yàlla nag defar ay yeneen yeneen structure ci biir yu am solo yooyu dama koo changé defal phrase yoo xam di ngeen xam bu ko taxaw ci ba la ay matériel yoo koy réussir xoolal kii ñuy hippocampe ndax boo ko day nuroog euh, hippocampe mais hippocampe lañ ko tuddee ki ko njëkk a indi yi je retiens l'essentiel et le restitue après un effort conscient manam mom yalla daf ko sak dugal ko ci biir yuur te len rek lay def téye li gëna am solo pour yow boko soxla mu dello la mu fàttali lako je retiens l'essentiel et je restitue après un effort conscient mais l'essentiel pour yéen lan la l'essentiel pour yéen soxna yi en tant qu'étudiante l'essentiel moy lan moy moy étudier <laughs> moy étudier ñi nek agronomie moy téye science agronomique ñi nekk archive muy téye archive mais am ngeen organe boo xam ne archive bu leen bëgg a mu téye ko mi ngi fii bu leen ne man muusuma léegi lii loolu yëpp amul beneen bi nekk ci wetam moom itam leneen lu yàlla sàkk la xalal li muy wax je retiens ce que moom nekkatul ci l'essentiel no nee na moom day téye li nga bëgg kii nag il est dangereux parce que na fekk nga bëgg jàmm soo bëggee jàmm mu téye mais ça montre que boo bëggul jàmm aussi nekk ci ay caaxaan da koy téye nga daal di bëgg caaxaan nekk ca musique ba nekk ca football ba nekk ca làmb ja léegi nag études yi dootuñu am place fii d'où l'hygiène de vie important te lii yëpp yàlla da koo sàkk jox ñu ko moo tax defar na yu am solo tegaat yeneen yoo xam ne moo ñuy jàppale mais ñun ñoo war a xam ni ñu koy utiliser parce que kii boo négligent mu yóbbu la ci loo xam ne gënut say waajur bëgguñu ko université bëggu ko alors comment ñu mobiliser capacité intellectuelle observation nangu observer le maximum possible Les lu nous teg xool ko réfléchir ci nit réflexion moo ko yor li moy analyser observer nga ne nii la tëddee mais li tax mu ni. nii loolu nag mooy indi xam-xam li tax mu tëddee nii bu bu yem ci ni rek la tëddee li tax mu tëddee nii poser wu question bobo. léegi Descartes mii ngeen di dégg nga xam ne profu lycée yi sonal nañ leen ci trop di leen ko wax biñ ko njëkkee wax dessineel nit lii la dessiné moom mu def ci bët yu rëy rëy rëy daa di teg ab tableau ñu ne ko mais li tax nga dessiné lii mu ne parce que ku yàgg xool dara di ci réfléchir ci li ma gis yu baree bari di nga ko xam loolu la defaree schéma bi mom ay mathématiques rek la doon gis motax gis ko mom mo indi les raisonnements de Descartes là parce que loolu rek la gisone mom légui yor gi nokay mobiliser bo nekké salle wala nga nekk examen étudiant mënul réussir demul jangi jël ay këyitam nafar ba paré réfléchir ci liñ ko wara poser question lan la prof yi dañ leen jox exercice yu baree baree bari luñ leen jox def leen ko tok li xale di wax nanal exercice ci tok defal yépp fexé ba trouver 90% bokay def mëno dem classe di échouer lan la lolu pré-réponse pré-réponse moy ngay exercice ngay def exercice di évaluer sa bop di def ay résumé dee leen yor ay fiche dee leen ay tablette di ci résumé dee leen seen ordinateur di résumé ba paré di jéem tontu ci question yépp lolu moy développer ce qu'on appelle la cognition cognition moy reconnaître benen bi moy bo paré loolu yépp nak nga né jekk na pour répondre bo duggé sal tok di xaar seigne Sam joxé sujet am nga bu joxé nga né réponse bi may def na doon ci réponse yi gën bul négligent bul né rek no dina répondre bu mo seigne Sam joxé 10 sur 20 rek baax na non non non man nga am 18 man nga am 19 visel 18 ou 19 étudiant non la wara def léegi rôle professeur bi heureusement amna fi quelques profs yu nek encore prof bi amnañ ci rôle rôle bu mag lañ ci am ñun moy nañu fexé ba étudiant bi bu egsee ñu capter son attention le maximum possible manam bul bàyyi étudiant bi muy distraire ci sa salle fexel ba yow rek lay gis ci deux heures yi nga ko jot wala quatre heures yi nga ko yor boo nekkee mom ci tol ba même chose capter son attention moy lan indice yi ngay joxe ci biir cours bi étudiant bi bu ko jox cours nii rek te orienté woo ko danga koy joxe indice da ngay préparer sa cours yow itam balaa ngay dem salle man yàlla defoon na bi ma nekk université Cheikh ju Diop bëri cours man su ma amee cours dix heures par exemple laa leen laa leen jox mais diggante huit heures ak dix heures kenn du ma gis comme man di doon nag xanaa muy suma waajur mu compliqué trop wala boog ma yor suma téléphone gis ne kii may woo war naa jël. mais suma bureau dama ko doon tëj huit heures dix heures parce que damay préparé dama war a dem jàngale ji loolu la ma askan wi dénk bu ma waxee étudiants yi dañ ko war a comprendre su ma amee cours 17 heures 15 heures 17 heures it kenn du ma teg bët kenn du ma gis may traîner ci biir université loolu mooy préparation cours bi jox ko ak xam bu tasee week-end nga préparé ensuite ngay expliquer cours nangoo sonn di expliquer étudiants yi nangoo sonn di leen expliquer le maximum possible lolou étudiant bi da koy sétlu ba ñenn ñi dañuy daal di bëgg sa matière sax dañ koy daal di bëgg manam bo waxe rek ñu ni eh professeur Mor Faye du ma rati kuuram parce que koku buma démé demee lepp lay comprendre mais aussi bu examen yi li ma am eh, damay am koku nak c'est l'amour du métier de l'enseignant après motivation bi prof bi di jox étudiant yi étudiant bi bu waré am note bu bokk mo ndon bu bon jox ko note bu bon mais bu waré am 20 sur 20 jox ko 20 sur 20.

nek ci société bu boba nak amna yenen yo wara def dama cee joxe quelques sembel rek lolu moy li ma tuddee méditation la culture les loisirs nga xamné non seulement daf lay def nit mais day dind bépp stress bu la na booy nar dund bay jaxli ci aduna la ngay teel tit fekk waroo tit wala ngay def li ñuy wax surmenage febar bu bon bobu nga dem ba sa yo togué bëgg a réfléchir doto mën réfléchir lolu nak bo nek ci université bi, kes dama cee teunk rek yenn yo xamné man nga cee sëgg te loolu yépp di nga ko def mooy nekk ci alxuraan ji ak di réfléchir ci l'islam religion musulmane dafa riche ba nga xam ne loo ci nekk di ci réfléchir muy ubbi kaamil di réfléchir ci li ngay liir lan lay tekki nga koy jéem a méngaleeg sax yow li ngay jàng fi mu ne lan la man li ma daan def lépp luy médecine dama ko daan wëri ci biir Coran gars yi naan kii moom dafa bizarre léegi man ni leen dama koy def rek foofu laa gisee le chiffre 2 le couple la ni mu baree médecine ba pare nekkat ci courant courant le chiffre de li tax muy ñëwaat lu baree bëri ci nit ñaari bët ñaari bakkan ñaari tuñ ñaari tànk ñaari loxo ma dem di seet courant nag lu muy wax ci ñaar yi mais loolu yéen mën ngeen ko def ci agronomie mën ngeen ko def ci archive mën ko def ak yeneen yi donc courant bi méditation bu mag la dem seeti barab yu sell yi maa ngi leen defal photo bii nga xam ne dama ko fonk trop mooy fi nga xam ne fa Serigne Touba nekkoon bi ñu ko yóbboo Gabon Lambaréné te lii am njàngale doo nga ma fa yóbbu dama amoon mission Libreville dem Libreville laajte fu sëñ bi nekkoon ñu yóbbu ma fa ma dogu ne Libreville doyu dinaa dem Lambaréné yàlla baaxe ma ma dem ba Lambaréné fii la foto bi nga gis ñu toog nii foofu la fee jumaay kër gu mag ji la foofu aussi daf ñu doon inspiré parce que jumaa kër gu mag bi gis ngeen photo yi génn rek bu ñu leen sëñ bi 1924 la ko defar lu nga taxaw di xool architecture boobu mais dafa doy seuk seuk xalaat ma def ci photo bi nga xam ne benn suba lañ ko jël soleil bi di jog mais juma ji taxawee nii nga xam ne dara changé wu ci 1924 ak léegi. lolu dafa doy réfléchir té dina la génn ci étude mais day fekk muy développer sa yóor di développer sa xalaat lolu lañ wax méditation xamna señ sëñ Rafaay bu ñu ko bàyyi ci méditation ci xalaat ak yoy dina leen ci mëna waxal lu bari seeti nit ñu bax ñi. nga xam ne boo demee photo bii ma teg ak sëriñ bi nga xam ne saa yoo demee jële fa dara même bu doon une minute nga fay wax bu la dox joxee ñaari kàddu rek jële nga fa lu lu am solo bu loolu wéyi aussi ngeen di xool tout simplement nature bi damay joxe exemple ñaari photo yi ay ay kii nag ay picc yooyu dafa am lu ci nekk boo leen di xool xoolal xoolal xool picc yi ni leen binde mais boo leen xoolee doone rek picc bi rafet na da naan li tax yàlla binde leen nii pourquoi Bible, bleu verte, vert bii eh, li muy lekke jaune li ci des melni melni melni Lolo, bo nii ci réfléchiré di nga ci am réflexion di nga ci am xalaat mais aussi dina lu yóbbu ci yenen livre yu lay jox culture nga xam li ñu wër nu mu nu mu teudé loolu dama koy encourager suñu étudiant yi parce que fi y a plein d'oiseaux day leen génn xool jéem leen xam ni ñu teudé ak li tax ñu mel non loolu da génn ci études yi reposer sa cerveau ba boo delloo saal nag nekkaat ci sa matière yóor gi mel ni ku noyyi parewaat pour jàngaat fekk ma nga doon jàng leneen ma nga doon xalaat ci leneen loolu aussi da ngeen ko soxla ay exemple rek la léegi sport bi aussi ci la sport bi ci la étudiant dafay yëngutu professeur dafay yëngutu ñépp a war a yëngutu man ngaa welo man ngaa am tapis man ngaa solu defal sa sport sa bopp université si bu bëggee mbir yi aussi dina préparer ay terrain préparer ay salle de sport ngeen fay dugg di sport da ngeen di dem nak sport bu l'université. ak université bi sport bu tout ak Touba mais étudiant day université day def sport c'est 30 minutes tous les jours au minimum trois fois dans la semaine C'est lañ que ngeen def c'est étudié à l'échelle mondiale partout étudiants, au minimum dafa wara def 30 minutes par jour au minimum trois fois par semaine C'est la santane. alors sport bi le sport rapidement parce que temps bi dafa sport bi d'abord bokoy def jaxlé yoy ngay def ci biir université wala ay jaxlé ndaw muy yak say nelaw nga joggé salle au lieu nga do nga ba fajar sport bi daf koy dindi sport dafay yokk qualité sommeil manam sommeil bi day mais day bax lol moy leneen li yok capacité de concentration et de réflexion Qui sport ni mieux concentré ou que réfléchir qui du sport mënu ko sport? li moy coono du la sport régulièrement Li ni def eh, man dama a damay du sport endurance ensuite yenn y yi nga xamne dañoo te lu ci bari sax li ñu seetlu ndaw la lay dugg mais boo nekkee mag lay feeñ sport daf koy éviter mooy tension mooy diabète mooy asthme mooy am yaram ak cholestérol bu bon bi yii yëpp sport moo tax léegi étudiant bu du sport moom ñun mënuñu ko comprendre ñun en tant que professeur de médecine étudiant bu dul sport mënuñu ko comprendre dee leen sport yi bu leen arrêté dem leen sport yi solu leen ngeen dem sport yi ensuite ñi am ay problème de digestion manam lek mu yéex a sport bi dara gënu ko ci bari na ay ay produits yu ñu leen di proposer sport be ko gën téeméeri yoon nelaw yi gis nga schéma bi bu ma ko defee souvent dañuy laajte ne ma li tax defoo ci photo étudiant Sénégal nga ci def ab euh, asiatique mais parce que asiatique yi fi mu ne ñoo man ci étudiant yi <laughs> loolu rek la mais gis nga asi kii dafa bëggut a nelaw mais nelaw moom yàlla sàkk ne foo aw nelaw mu toog naan du ma nelaw duma nelaw du ma nelaw gis nga ba nelaw yi fekk ko fa ndeysaan mi ngi nelaw di jéem a téye stylo bi sax parce que moom dane woon classe am toujours premier concours bu muy def it mooy raw mais gis nga ñu bett ko foto ko mu ngi nelaw léegi environ 6 heures 8 heures par jour loolu ngeen soxla damay wax li ngeen soxla nit ñi ne bokkuñu mais 6 heures 8 de sommeil surtout guddi gi surtout guddi gi ba pare euh, nga nangoo dallu nangoo dalal sa yaram balaa nga naan damay nekk di nelaw parce que nekk di fitna nekk ci portable ba pare naan damaa mën a nelaw it ànduñu léegi lekk gi bon lekk gi ay schéma rek la ñuy joxe ndaw ngeen donc bëriwul trop ay problème cependant règle yi dafa jar a adapté léegi pas trop gras maanaam lu niin ba ëpp baaxul lu saf suukar ba mu ëpp baaxul loolu moo am nañ ci problème ak jeune sénégalais yi da teg kaasu café jël ay huit morceaux de sucre def ci kooku problème dëgg la pas trop sucré pas trop salé bu mu bëri bu mu bëri xorom pas trop cuit buñ ko togg ba mu ñor ba ëpp lii nag da ngeen bu ngeen ci équilibré di ngeen xam leneen li mooy manger ay légumes ay fruits ay jën ay céréales fii dafa tàng fu weesu Dakar ak Petite Côte dafa tàng moo tax un litre et demi lañ leen di ñaan ngeen koy naan parce que bëri na étudiants yu ñëw di ñu consulter professeur dama surmené mënumaa jàng damay ami crampe damay tiit damay am ay palpitations dañu dul naan rek te wóor na ma bu ma ne woon yëkkatee leen fii loxo ñii naan 1,5 tuuti lay doon loolu sénégalais day fàttee naan or ñun médecin li ñuy wax naanal balaa ngay mar boo ne ma jur euh, dakaar Diourbel ñaata nga war a naan un cinq litre do en moyenne par jour. boo gisee léegi loolu dafa law ba nga xam ne boo demee campus yu pays développé li lay jaaxal étudiants yëpp dañoo am gourde. xam naa di ngeen fa dem ñu mu jaaxal leen ngeen ne mais pourquoi ñu am gourde mais dañoo bëgg xam ñaata la ñuy naan parce que fontaine yaa ngi tege fu nekk mais teewul ñu yor seen gourde <laughs> dañoo bëgg wóor ne na naan lañ la ñu war a naan am na ay garab yi ñuy wax yooyu benn dong laa ci cité amul benn garab buy yokk intelligence wala muy jàppale étudiant bu dul vitamine C yeneen yëpp moytu leen leen vitamine C donc te vitamine C mi ngi ci orange mi ngi ci bisaab mi ngi ci buy mi ngi ci yu bari sinon na nga dem jënd à part boobu amul war na ma di ngeen ami question bu ngeen ci amee ngeen wax ma amul benn garab ñu leen ci mën di wax dañuy wax amul café amul problème yu bëri en bëri na coow lu ci nekk mais amul benn problème café ak té amul benn problème sauf ñenn ñi nga xam ne buñ ko naanee dañuy am ay palpitations te ñooñu li ma leen di wax nañ def ci ñaari docteurs yi fi nekk mu xam li tax ñuy ami palpitation su dul loolu amul problème cependant bo dawul nan café té lu bëri ci guddi gi moytu ko di jël ci goudi ndax daf lay yakal say nelaw manam bul gis ne ki nga bokkal néeg dafay nan café rek mu embarqué la ci alors que yow suba nga ko daan nan ak bëccëg bul dugg ci bu guddi bi parce que bokay nan di commencer insomnie yi ñi wax amphétamine maanaam yooyu nga xam ne sax génération bu ñew wutal ko tour manam daf lay yé bu examen di egsi ñu leen koy proposer ñu nan boko nané man nga tok 3 4 jours. c'est pas bon do doo law baxu day yok sa mémoire day yok sa xam-xam c'est pas bon bu ngeen ko jëlé dina la indi yeneen problème pour conclure ma jéxalé fofu bu ngeen amé question nak xam nga sujet bi dafa vaste dina ci répondre bu sobe yalla lima ma di tektal dal té ngeen fi sen tank na ngeen ni li leen fi indi jàng la pour am seeni diplôme du leneen té jang dafa gatta gatta gatta gatta man bi may def médecine nga suis ñi nga am ah li nga koy def mëno gaaw ak 7 ans 8 ans té ma essayé xol mais bi may jour bi may soutenir dafa médecine 8 ans la ans mais dafa meloon ni démb la commencé ñi ma doon wax ñëpp est-ce que guddut yow itam nga dem dafa la dafa gaaw waxuma ans cinq ans dafa gaaw de fi indi di def sport wax naa ko ngeen di seeti barab yu baax yi di ci réfléchir ngeen xam leneen lu agronomie leneen l'udul archive ak yooyu du def l'udul dul yokk seen xam-xamu archive ak agronomie boobu ak euh, électromécanique ak euh, pétrole et gaz daf koy yokk ngeen nelaw li ngeen war nelaw nelaw nag ku nekk ci yéen xam na nombre d'heures yi nga xam ne bu ko nelawee jàpp na forme loolu dama leen wax ngeen seetlu ko dès maintenant ngeen koy kale jéem cee nelaw parce que étudiant day changer vie mais yéen moytu leen di décaler seen nelaw yi seen parents yeeg seen prof yi am nañ ci rôle bu mag seen waajur yi de leen leen informer bu ngeen amee jafe-jafe na ngeen leen ko wax bu leen hésiter dem ci bureau prof yi di wax ak ñoom mais étudiants yi léegi dañuy dànd prof yi foog ne prof bu ko jegee non dee leen leen jege professeur Mor Faye dee leen ko seeti bu sérieux ngeen seeti ko dee leen seeti les directeurs du UFR la directrice de l'institut ngeen di waxtaan ak ñoom léeg-léeg am nañ jot ngeen dem seeti leen rôle de l'étudiant mais rôle bi moom yéen la yen rek yen a mën réussir man nak dama koy résumer mané ne décider de réussir et de bien réussir avoir un ou deux modèles modèle yi nak mom jërul tem fu sori Cheikh ahmadoul Khadim ngeen nek université Cheikh Ahmadul Khadim moy premier modèle jël len ko modèle di ngeen gis su len di won photo lambaré ni bi man buma ma fi Sénégal lég lég ma dem djourbel wéet fa di def sumay liggéey def suma liggéey bop consulter malade bu wàccee ma toog ñu fekk ma fa ne ma nga wéet mel ne mais yéen xanaa nekkuñu kër gu mag Jurbel bu ngeen réfléchir ci sëñ Touba bi ñu ko génnee fii wéetaange ba mu nekkee woon de di du ngeen fekk kenn mu toog këram lépp waru ko ci suba gis ne nit ngeen naan ko wét moo tax man wéet dara dara laaj ci faalewul maanaam amul problème day tax a réfléchir étudiant nag ñeme leen a wét ñeme leen a wét ak carnet yi ñeme leen a wét ak appareil yi ñemee leen a wéet ak tool yi te bañ tout temps lu am ngeen fekke ko loolu mooy premier modèle bi yeneen modèle yi nag ñu ngi nii toog ñii ñëpp ay modèle la mën naa leen ci bu ma ci li jëloon kenn par kenn dinaa ci wax ne koo ko seeti këram waxtaan ak moom dina la xelal loo xam ne université bii doo fi am benn jafe donc jël leen leen comme ay modèle sëñ Ahmad mii modèle la modèle la lu ci bëri dañuy jox jokkoo moom ci ay situation xam nañ ne modèle la un profil ay modèle voilà que bi loolu laa bëggoon euh, indil étudiants yi léegi di leen wax euh, présentation d'habitude sax université yi dañ film étudiant ngi dalal di wax fi deux ans DUT yi trois ans licence yi dem quatre ans premier master yi taux de réussite bii 98. 99% d'entre eux neuf pour cent doon taux yi gën Sénégal wa rahmatullah